mooy xaar ba bés bu waxee ñu xam lan la bëgg wax loolu benn la beneen bi euh, je pense que junj na dissolution assemblée nationale mm-hmm. euh, lu ko waral moom mooy doctrine moom moom mooy élection yi dafa bëri ci dëkk bi nee na def na onze ans onze élections dafa bëri élections yi ni ñu tegloo nañu xool nu ñu rasa nañu rationaliser calendrier électoral Sénégal au niveau de l'Assemblée nationale foofu la def digression boobu xool président assemblée nationale ne ko d'ailleurs euh, parce que xam ngeen euh, session bi day tëj lundi lay tëj le 26 lay tëj donc session ordinaire bi session mm. unique bi day jeex puisque première quinzaine octobre la ba fin euh, juin euh, juin donc euh, probablement euh, session extraordinaire ñu ñëw pour jéem jàllale point consensus yi nga xam ne moom dina ko valider parce que ay proposition Euh, loolu yaa ngi koy junj sànq. Euh, on est passé de euh, voilà. Euh, recommandation consensus à, à, à consensus à accord proposition. à proposition. Mhm. donc junj na ci ne li ñu mébét moom mooy assemblée nationale bu dajawaatee probablement ci session extraordinaire dinañ ci waxtaanee wala dinañ ci jëfee dissolution assemblée nationale pour que élection. yi ñu nar a organiser parce que boo dissoudre il faut nga organiser ay élections ñu méngale ko ak élection présidentielle bii di ñëw yeneen yi ay déclarations politique yoo xam ne vraiment ce sont des highlights yoo xam ne dafa génn nii ci wax bi moom mooy fàttali na tax moom li mu gëm ci boole euh, président de la république ak euh, responsable de parti et cetera fàttali ne doctrine am loolu daf ko yàgg wax musu cee ànd parce que dafa bokk ci point yi nga xam ne soit juñu ko ci waxtaan bi wala dañ ci commencé wax àggul ñu dàq ko mm-hmm. entre autres donc ça c'est vraiment des éléments mm-hmm. euh, yoo xam ne dafa émerger nii ci bu mu jëlee parole mm-hmm. di di di wax li ci des si nag du ma ci sori moo di ni euh, boo xoolee euh, dayo bi ñuy jox commission politique bi temps bi ñu jox Euh, proposition yi nga xam ne ñoo génn ci commission politique bi ak commission bi nga xam ne war na ma ne professeur ak man mii sama bopp ñu ngi si doon bàyyi xel bu baax muy commission économique mm-hmm. et sociale mm-hmm. dañoo sax waxul recommandation mm-hmm. dafa ne rek quatre sous commission moo fa nekkoon président bi bay di añ euh, ak thématiques yi nga xam ne ñu ngi ko doon waxtaanee ak quatre-vingt-huit amul benn mesure phare bu ci wax alors yeneen yi. appartenance euh, yi. <coughs> voilà ñu recevoir. non yeneen yi sax tane na parce que bu ñu la waxee ñu paix sécurité. Mhm. entre autres recommandé nañ par exemple ñu euh, regrouper. Mhm. police ak gendarmerie. Mhm. ça c'est une proposition. Euh, ñu euh, contrôler davantage communication digitale génn na si paix et sécurité génn na sa jeunesse. loolu tamit dafa am lu muy wone tuuti mais économie et sociale amul benn proposition bu ñuy wax ni commission bi proposé na ko. ça dit quand même beaucoup de choses. Mhm. heureusement comme l'a dit madame euh, Marie-Angélique Savané. proposition yi ñu ngi ci document bi donc am na yoo xam ne duñ ci mën a sori il faut ñu xaar ba document bi ñëw ñu segg ko bu baax a baax waaye ñu ci mën a jàpp moom mooy daal wane nañ ni aspect politique yi mhm. ñoo ëppoon peut-être importance mhm. que yeneen aspect yi quoique que président rappelé ne ko maa ko doon wax sànq bi ñuy tàmbali waxtaan bi tey jii ku gis li xew avec Wagner rebelle wu. Mm. bay uti Moscou. Mm. d' ailleurs j'ai pas suivi actualité bi ces deux trois dernières heures xaw ma fan lañ mujjee mais ñu ngi doon wéy di dem Moscou avec conséquence terribles yi nga xam ne mën na ko am ci géopolitique mondiale. Mm. waaye aussi ci économie ak sociale à tous les échelons. au niveau mondial au niveau continental. ak suñu dëkk yi parce que kenn mënul teqale. li nga xam ne moo xewoon fii ay bés yu ñu génn. weer yi ñuy génn ak at yu ñuy génn ak un ensemble de facteurs facteurs yi nag mën na nekk ay facteurs endogènes très localisés mun na nekk euh, mécontentement mun na nekk benn étincelle totale et cetera mais euh, day dem tamit ba ci kaw